sa loxo bënn lo yor du taxaw nga bëgg borom kër wala soxna mu jafe la lool sa bop jaxaso sa ëlëk jaxal la lool loolu lépp bu la dalé solution bi moy dawal séti Serigne mohammed jaxaté Lasrar di borom xam-xam bu mag bu yàlla may ci listikhar bu leer ak ñaan ci walu lasrar yow bi bëgg tukki bitim réew visa jafe la lool wala nga tukki bëgg ñibi ci ci réew mi mu jafe la lool dawal séti Serigne mohammed jaxaté Lasrar mu ci morom li ñu boole ay borom xol yu dëngoo dañu bëggante bëggante bu jéggi daywa ak listixaar bu leer wax la say mbir ba nga xam ne gis na la loolu ñëpp mànkoo nañ ne Serigne Mohamed Diakhaté amu si moroom ngir jox ko moom woo ko si numéro téléphone bi di 78 201 82 44 ak Serigne Mohamed Diakhaté Asrar aajo yëppay faju waaw moo ngoogu euh, Sa Thiès Eumeu Sène instant bi ñu ngi stade ba euh, mën nañu wax gis na ñaari mbër yi bi ñu génnee seen kër ñoom ñoom ñëpp ñu ngi ci état de forme bu baax a baax macha allah donc actuellement nag y' a beaucoup de marabout y' a beaucoup de sëriñ ñu donc yi nekk ci internet bi ñu ngi ciy wax et tout ñii ñi ngi xam le que ne Eumeu Sène mooy daal ñii Sa Thiès ñii ne victoire bi leerul ñii ne 4 appuis et tout mais ku mag ki wax naa ki nga xamante ne moo leen mën ñoom ñëpp Mara donc am na lu ma junjulee waaye en tout cas xam leen ni du ma ko révéler mais xam leen ni combat bi xale ki nga xamante ne moo gën a nekk xale moo gën a moo ëpp doole ki nga xamante ne moo gën a liggéey ci combat bi ah kooku mooy daan kooku mooy daan en tout cas ñoom ñaari ñëpp mbër lañ et que le meilleur gagne dans le play et tout j'espère noonu lay demee li la ñu leen di like di commenter jaa ngeen jëf.